voilà maa ngi nuyu mbokk internet yeb di présenter wu man la Gabriel Marie Bob nek adjoint au maire fi ci commune Kër Moussa yalla dafa def nak maa ngi ànd une délégation muy ay nit ñoo xamante ni leen respecté fonk leen ki ci jitu mom moy monsieur Mor Diop mi nga xam chargé de mission la au niveau de la mairie ki ci top moy Pape Ndiaye ñu gën ko xam ci Seyni Ndiaye mom tamit mu nekk un chargé de mission au niveau de la mairie keneen ki ci top moy Ndonga Fall muy sama promotionnel ñu bokkon classe muy tamit un chargé de mission au niveau de la mairie amana na keneen ki ci top tamit moy Samuel Sagna muy boy bo xamantene tamit on travaille ensemble ci lu bari keneen ki ci topp mooy euh, Dawour Gueye moom tamit mooy suñu rakk suñu xarit mooy koo xamante ne wax dëgg yàlla luñ ko sant rek daf ñu koy defal. ñu ci ànd ak tamit suñu beneen booy bu tudd Cheikh Sarr muy xale bu rafet xale bu yaru xale bu dégal ay ay grand frère am voilà loolu mooy délégation bi. di leen di nuyu encore une fois di nuyu monsieur le directeur mi nga xam ne moom moo jiite Elite School te bu ñu waxee Elite School rek ñu ne un fois de rayonnement intellectuel parce que loolu dafa maa ci seen ci seen ci seen te loolu dafa am solo. ginnaaw moom tamit di nuyu administration bi nekk Eli School yëpp di nuyu administration bi di nuyu tamit professeurs yi fa nekk di sant di gërëm tamit élèves yi nga xam ne ñoom ñoo jël seen choix porté ko ci man pour ma nekk parrain wu seen seen manifestation yi yàlla dafa def tamit ñoom nii ci seen délégation bi maa ngi ciy gis sama benn xarit sama rak muy Ibrahima Seck mi nga xam ne yàgg nañoo cheminer ensemble di yëgal nit ñi tamit ne président Macky Sall euh, bi mu njëkkee dugg ci commune Kër Moussa en tant que un responsable politique d'un parti muy APR jamono jooju muy dekkal ngor moom mii bokk na ci ñi ko recevoir au niveau de xodd ba du ma ko fàtte mukk muy koo xamante ne pionnier la woon tamit ci ci parti bi ku yàgg tamit di œuvre ci politique fii au niveau de Kër Moussa kii ko ko xam da nga koy respecté te xam ne kii lu liñ benn liñ conduite bu dëgër la am loo xamante ne kenn mënu ko ciy dévier te dafa am ay valeur yi muy incarné au niveau de la politique kon kooku dama ko ciy seedeel ma ko ciy seedeel ci ñi nga xam ne moom la nekkal au niveau du PUR parce que tamit nit da ngay assumer say choix ñi nga xam nga tamit moom te bu mu fa nekkee tamit lu rafet la fay liggéey am na fa ay responsabilités yoo xamante ne su ko amul woon dina ma jaaxal kon kooku tamit kooku fu ma toll dama koy bége te damay fier ci moom quoi ma xam ne au moins ñun liggéey bu ñu liggéey gis nañ njëriñ bi donte foo mënti dem tamit di nga fa imposer respect ni ñi dinañ la fa jox cër dina am ay responsabilité yoo xam di nga ko fa am moo tax su ma ko gisee mu am responsabilité yooyu ci coalition boobu rek man dama ciy fier quoi ma xam ne man mën na ko te mérité na ko surtout mën na ko ci loolu da am solo quoi voilà. enseignement ci euh, am solo. yàlla bi voilà man mii di wax ak yow sax parent d'élève la au niveau de Elite School parce que am na ci ñoo xamante ne samay rakk lañ ñoo ngi foofu te yàlla dafa def ci sama loxo lañ jaar pour ma yóbbu leen ci école boobu école boobu bu fekkoon école boo xamante ne naka sudul noonu la ñun du ñu jël suñuy rakk di ko fa yóbbu mbaa suñuy jarbaat da di école boo xam ne je me rappelle au début ñoom bu ñu ko fiy def ñu bari dañ leen doon rey ñu bari dañoo yaakaaroon ne affaire bi du dem mais ñu gëm seen bopp rek seen bopp tamit gëm te ñu am kilifa

de manière générale donc nous, côté des ñoo leen ci sante tamit collaboration avec ak mairie bi tamit vraiment lepp lo xamantene dañ koy def ci éducation parce que suñuy rak donc ak suñuy vraiment gis c'est une école sérieuse c'est une école qui a compétition des am parce que lépp loo xamante ne normes yi nga xam ne état bi teg na ko ñoom respecté nañ ko muy ci uniforme boo duggee seen classe yi les élèves sont bien assis parce que dama fay dem administration bi tamit boo fa demee di xam ne ñii nii ay nit ñoo xamante ne mën nañ liggéey te loolu dafa am solo ndax bëri na ay école yoo xamante ne yàlla yàlla ma yàlla baal mais boo fa demee doo am envie yóbbu fa sa doom quoi mais ñii ku fa dem di am envie yóbbu fa sa doom actualité par rapport ak li ci xew voilà par rapport ak li ciy xew ñun boobu li ñu njëkk wax d' abord mooy euh, ñun fu ñu mënti toll ñun dañoo am benn mentor koo xamante ne bu waxee ñu wax bu bu ñu waxee ñu def muy kan muy le président de la république. te tey jii ñëpp xam nañ ne dañuy dem ci ay échéance électorale te moom ku ko gis xam ne moom nitu jàmm la kon ñoo ngi lancer appel ñëpp ñi nga xam ne c'est des acteurs politiques. Nous dal te le pouvoir bi pouvoir bi ci peuple bi la nek am peuple bi jox bu tamit peuple mais quand même ñun ñi nga acteurs politiques Nous dañuy le président de la république suñu devoir de lan dem convaincre peuple bi le président peuple bi le kenn du fi peuple bi moo lay fal kon dal le pouvoir revient au peuple la décision revient au peuple Quand boog lépp lu ñuy nous nañ ko peuple bi rek ñoom ñoo juger nous ak le peuple bi le la ko jox kon côté nous devons la ñuy parce que tamit au niveau de Cœur Moussa dafa xaw complexe foo dama koy wax ñu Nous ci ay parti politique mais yàlla dafa def parti politique politiques. ñun ay avant parti partis. partis parti